yi dañu ne dañuy ànd waaye ku ne na wax li muy bañ gaynde ne damay bañ ku ma xool ci bët ca njëlbeen lañ ko wax ñaay na damay bañ ku ma xëpp suuf jaan na damay bañ ku may dëgg sama genn bukki na damay bañ ku ne ma u du wax nañ ko te demaguñ ay dëkkandoo lañ ñu xëy suba bukki na jàkk gaynde di ko xool gaynde na ko waxoon naa la bu ma xool ñay na u bukki na ko waxoon naa ne bu ma u jël suuf xëpp ko ñay mer daw di jëm ci moom dëgg ci geenub jaan eh. foofu day jaan mer wëlbati ko màtt ko mm-hmm. gaynde fàdd bukki ñay des fa ak bukki na ko yow yaa indi lii lépp dal ci koom dëkkandoo jàmm ci gën ndax ay dadul yem ci boppu borom ay dadul yem ci boppu borom te kii wut aw ay nag